ki Sénégal 7 mbokk internet yi tey euh, seen xarit seen soppe mbay Ngoné Fall mi ngi ak yéen di topp làmb rek di topp làmb topp ab tànkam ba mu dugg ci kër goo xam ne làqar ci ko day jafe ndax dafa yàgg ak moom maay kan maay mag sa mbargaan foo yaroo diggante caar yu géej ak lamsaar foo jaar ci làmb mu ne daan naa zàlloo bëccëgu ndara kam Moustapha Guèye toog ñëpp toog bëre naa ci àll bi bëre naa ba bëre ak Mori ture keroog doon ko sot jam ko ay béjjén ay sàlli naaw naaw bëre naa fu nekk mbapat ku ma mësaan dajal dama koy toj mbër daan na jóge fii caaroy géej wala tableau Tiwaawoon dem làmb su dee dugg ci làmb ja xelum mag sa mbargaan lay yóbbu moom lay bëree ndax dina la wax li nga war a moytu lépp ak fi nga war a jaar te soo fa jaaree di nga am ndam ba ci Bombardier ba muy bëri ak Tyson mag si génnewu ci am xelam génnewu ci ab loxoom Max Mbargane nuyul mbokki internet yi nuyu mbokki senegal seet yi ma dugg yow ci waxtaan. waaw euh, di leen nuyu euh, di jiital rek sant yàlla bu baax julli ci yonent bi gërëm sunu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi yow nag da ngay euh, sama mag di sama xalifa. dañ na mag sa ndaanaan la ci làmb mais bu ma la daje damay ndax ndax yow <laughs> yow yaay sunu selbe di naan ale li njulli selbe ca ndax léeg-léeg nga ne ma ba ngay bëri jéeg ñoom dut bàkk de ma jàpp sa loxo ñuy jéggi ñag yi di dem moo tax su ma déggee père Max ma naan xale bu ndaw la may leen waaye père laa mais xale laa ci yow Mbaye Ngoné euh, di kontaan lool nag. ndax li bële keroog ak Doudou Bakka Doudou Bakka toll nu ko neex keroog maa ngi jàpp sab loxo ñuy jéggi ab ñag ñoom Maas Ndiaye nem si yàlla seet naan na ko yàlla yërëm nga xam ne tuddee nga ko doom waaye tamit ñoom Alla Gueye ak ñoom ñëpp doon daan taxaw ak ñoom Birahim bu ginnaaw rek wax dëgg yàlla. dama laa woo rek nga wax mooy leen loo dund xam ko wax ci day yomb euh, loolu ñu dal nag moo la dal yow sunu grand nga yow ñoo bokk feebar maanaam dañuy dund làmb boo gisee émission yomb ñu émission mooy waxtaane làmb te ñun fu ñu toll dañuy waxtaane làmb waaw waaw <laughs> jërëjëf Mbaye Ngoné ah làmb mel na ne fi mu ne mi ngi bëgg a décanté waxoon nanu diggante Tapha ak Ama Baldé sunu borom dogalu ko nu wax diggante ki nga xam ne mooy Ama Balde ak Modou Lo bu énergie naam ay avance gën na waaye ba léegi amagul lenn loo xam ne nit mën naa taxaw waat ko ci ne nii lay demee combat yi yi taxaw bariwul yi ñu fii tëgg actuellement yi nga xam ne moo tax làmb di jóg ñu ne ay combat yu mag ngi nii yoo xam ne événement mi ngi nii yooyu soo dee xool daanaka taxawagul Balla Gaye amul combat Boy Niang amul combat Sa Thiès amul combat Nees amul combat rëg amul combat Modou Anta amul combat Tapha amul combat Malick Niang amul combat Gris Bordeaux amul combat Eumeu Sène amul combat Baye Mandione amul combat tey nu dem ba indi le choc des guerriers muy ki nga xam ne mooy Papa saw ak Siteu nga yore Siteu lan mooy ouverture làmb fii mu ne nga gis ko te Pape Abdou Fall tëgg ko. waaw li may wax mooy bi Gaston di ñëw 92 crise la fi fekk. mais crise bi léegi la gën a métti da lim rek dañ ne ku lim juum ma doo juum da nga dul matal juum mooy mu weex nga ne dafa ñuul mais bu dul combat bii nii gisoo fi mbër moom avance 3 jarul sax ngay lim yi ci ay combat yu ndaw la ay combat yu ndaw promoteur yi nag ay jàmbaar la ñu ndax euh, métti na mais bàyyiwuñ benn yoon mais difficilement la ñuy organiser kon euh, moo tax mbër yu bëri ñii am nañ ay visa tukki euh, li ëpp ci mbër yi bëriwuñu fu téeméeri mbër ne ñay bëri matuñu fukk euh, promoteurs yi dañu seet ki am mbooloo ndax it nag am taal bu tee tàkk nooy lañ koy taalee kon làmb am na problème Pape du Fall nag du tey la def loolu ndax gënoon naa metti mu ne duma bàyyi làmb ji dee donte lekkuma dërëmu làmb mais danaa sol sama robb doon avocat làmb ci kon moment bi bu taxawee jël affiche bu mag bii woo Tapha ak Ama Baldé wax ak ñoom ba jiboo estafu Tapha ñëw toog malentendu am ci côté Ama Balde mu ne avance bi du ma ko delloo ca banque ba avance boobu la mu mujj jox Siteu Papa Sow kon koy nit ba loolu ni mu waxe ni mu jëfee la mel kon lam taxawoon ne dama bàyyi làmb ji dee dëgg la ci moom kon mbay Pa Abdou Fall duñ def lu dul di ko ñaanal rek ndax léeg ma ne ko ku ne xam na ne man damaa bokk ci waa ŋàdd faale wu ma borom pañe waaw li ma am doy na ma. Euh, bu ñu dee wax borom ŋàdd yëgul borom pañe nag doy loo tax mais bu jaay taxawee ak nga xam ne pañe du borom ŋàdd waaye nag euh, ki yor ŋàdd ku yéy mu yëy man nag li ma yëy doy na ma waaye lu waaye am yéene naa la ko euh, mais bu ma gisee may wax ci Pape Abdou Fall damaa xam ak baaxam ak sonn làmb te lekkul dërëmu làmb kon nag ñoom ñun ñoo yor xale yi mën na leen a jàngal bëre mën na leen a encadrer conseiller leen mais leen a tëgg kon bu ñu gisee ko leen tëgg dañ koy jàppale moo waral ma man ne ci ginnaaw Pa Abdou Fall ak ñi mel ni man di ko jàppale Mbaye Ngoné mais loo mën ci dégg daal euh, làmba ngi amaat yaakaar dañuy ñaan mu continuer mbër nag li ma lay conseil mooy bu saison bi tëjee ba paamul tëji bul yaakaar ne da day day doo bëre marchandise nag buy jaay soo gisee client ak boo gisul client na rafet rafet gi xam nga mbay ngoone dàquma laa jàng maanaam maanaam buy def lu lay xañ doole <laughs> waaw bu ko def mooy na rafet moo tax ma ne marchandise buy jaay boo gisee client ak boo ko gisul na rafet euh, kon entre mbër yi nañuy ent nañuy entraîné te sàmm ko am yaakaar ci ne fii ak saison bi tëjul dinañu bëre euh, li ñuy ñaan nag mooy balaa saison bi tëj jël nañ dadi ba avril bu dëgmale fin avril dugg ci koor gi diggante juin ak juillet yàlla na ci yeneen affiche yu mag tag ndax VIP yi ci làmb ji la ñu bokk mbay ngoone waaw ah, VIP yi ci làmb ji nañu bokk Max wante Max Mbargane tey euh, combat bii nu tuggee la choc des guerriers ah! yaa ngi mbër moo xam ne day gis naa ko ci MMA man naw ko lool naw fitam ak njàmbaaram ci biir làmb waaye ki muy dajal daal daf maa jaaxal ndax ku toll ne Baye Mandione nga nax ko ne ko damay xeex si ak yow foo nekk naa la fekk ñu lay xaar nga di ko nelawal di ko nelawal ba egsi ci kawam song ko te yëgu ko nga daan ko jël lu bëri ndax si taa ngi sóor loolu. waa Siteu ndaanaan la boo xamante ne nii xam nga moog Ama lañ doon wax te Ama daan Papa Sow ku soxla woon Ama kay boo jëlee boo jotee Papa Sow ñu ne risque la ci yow kon la nga doon wax ci Ama dañuy wax du dëgg. déggoo ma de. yow laa dégg Max Mbargane. waaw kon bu nga ne kuy lugu lan. waaw waaw dama ne <laughs> xam nga ku soxla Ama Baldé ñu coow ci ay at. ba yàlla def sottiwul te Ama Baldé moo mujj daan Papa Sow kon boo jëlee Papa Sow ñu ne risque kon kon bi ngay daan li bi ngay laaj Ama Baldé dañ doon wax ngay fontu da ngaa yab nit ñi. bu koy jàpp jaan doo faale jiit. bon beneen bi mooy euh, li ma bëgg wax mooy euh, Siteu mënatul bëre lu ndax mbooloo mi koy topp ak cachet yi koy fay li am solo rek mooy na yokk dooleem def fulla fay fayda ta luñ ko jox mu assuré ko mais yenn millions yi mënuñ la koo fay ba pare ngay bëgg a tànn adversaire moom koy na wit doole rek et puis yaa ngi rêvé doon roi des arènes Modou Lo guddul rëyul kum daje nga respecté ko xam nga ceeli ba mu daan këf cuuc benn jour seku la dajal ba mu ko këfee dañoo xeex ca kaw xeex ba mu sànni ko seku bi cëppeelu yël bu xool ko ca asamaan sa ne ko du ma cuuc waaw kon moo lay wan euh, jom rek moo am solo ak fula ak fayda te Siteu nag jom jaa ngi ci moom donte ndaanaan lay dajel ndax ku bëree loo ramat ay trente combats di ndaanaan dajeeg champion bu ne. Papa Sow bi mu bëjeeg tonnerre bi mu sumee ko waa Fass yi koo xool ñi dañoo sëgg di jooy ndax ni tonnerre toll kenn mënu ci moom dara te gis nga jël ba mu ko daan wax nga léegi moo bàyyi ma njoon waaye Siteu it ndaanaan la boo xam ne. gëm-gëm lépp am solo muy phénomène es ce que xam nga mbay Ngoné Siteu comme ni ay Modou Lo bala Balla Gaye naan cent car cinquante car Siteu benn car du ne këram tarkindaay ay taxi la ñuy jël euh, oto su niroo mu jaral leen lu ne boo billet bu seer du la tàggaleeg ñoom. non non bu seer lu mu seer seer tarkindaay Siteu yi am nañ ko. dégg ay taxi la ñuy jël ma maa dañ moo sañoon toujours mu bëre duñ gaare ay naan cinquante car cent car déedéet taxi la ñuy jël ñi ci des dox. mu jaral leen ko loolu boo dul ndaanaan doo jaral kenn jóg kon daal li ma bëgg a wax rek mooy combat la bu solo Papa Sow ndaanaan la Siteu ndaanaan la mais bu jëruñu combat bi ngeen xalaat ne muñ cee génn noo buñ xalaatoon ne duñ ci génn duñ ko jël Siteu nag su mënta daan Papa Sow bu yóbbee bàyyi dem witi leneen. su mënta daan Papa Sow moom fii mu ne. moom bàyyi dem witi leneen ah lamb ji lu yomb. Ah, waaw loolu lu wér la moom waa ndax defe naa ko doon wax Ama Baldé nu indil la Papa defe naa ne su fekkente ne. Ah, maanaam lu tàng rek nga bëggoon tey yaa ngeeg loo xam ne tey soo fa jógee normalement comme ni ma ko waxee Max Mbargane waaye nag làmba ngi doon Papa Sow daal dafa saay saay daal. non daa daan daanaan la daanaan la dañ koy jox cër Papa Sow ku ne bëgg naa ba rek moom ndax daje nag daanaan yëpp ku ne bëgg na koo boole ci sa kon xam nañ ne daanaan la ñuy dajel koo xam ne am nañu ne bésu it sax day bàyyi dem entraîné ji ah, kon moo lay wan ne euh, ndaanaan la ku am fulla ci li muy def la xale bu am fulla ci li muy def la waaw <laughs> ñun nelawuñu nelawuñu Mbaye Ngoné ñu ngi ne moom nelawuñu. waaw li may dégg léegi man de mag sa am na lu ma kii ñu ne ma nag mi ngi say loxo yaa yor kii yaa yor carte ma nag kéwam kii kii bi eh, eh, licence am. waaw mos ta jëg samay loxo. su see jóg ci yàgg moom ca Baye Yéri Jaxate yàgg moom ak laat keroog ba muy bëree cam ba pat ma keroog daan Modou Ndiaye ëlbatiku Xaadim Ndiaye jóg coow nar faa am yàgg moom ca Tyson numéro 2. yaag moom ah non non non non non ji nger yaag moom non bëgguma sax di lim. damay bëre mbapat ci lañ xamante mat dem bay tëgg mbapat muy ñëw sama mbapat loo fa teg mu jël ko sama biir kër laa ko bindalee lettre demande ménager ne ko baawu sama xarit la mais moo yor Tyson paa yéri laa lay jox ñu dox bëtt camp bi dem dem kër paa yéri fekk ñu fu mbaay bàyyi fa lettre ba beneen samedi bu mu ñëw saako ceeb ma tëgg sama mbapat mu jël ko. ñu bëtt camp bi dem fekk fa paa yéeri ma jël lettre bi jox ko mais la ma ne woon baabu sama xarit dama yor yaa yor Tyson te yaa fi war a jëlee Tyson mais yàlla jox ma dëgg bi muy daan Tyson bi muy daan Tyson maa ngi sol blouson vert blanc bi toog ci chaise bi ba mu demee ba doon roi des arènes nag euh, ma créé école de Lamsar moom mu toog mbuur mais maanaam tàggoowuñu ndax bëriwul lu muy jël dugg ci dara te du ma laaj sama xalaat. booba la bari na lool caar yu kon nag li ma bëgg a wax nag mooy euh, ci man la démarré woon euh, buy ci yàlla andee ci man la nar a tekkee ngembam remplacer Pape Dia nag du yomb yàlla na ko yàlla xaraal jànn mais Bombardier sama loxo musul jóg ci moom ak sama xel ak sama xalaat kon continuité la yow yow lépp fi la la fekk. ba muy bëre ak Tyson am na bis boo xam ne. à l'approche du combat keroog fa bat leen sikki nekk ak bil liiru jaan keroog fa la wàcc fekk la fa. wallaay fu ma mos a ne fekk na ma fa. mu doon sama rakk doon sama xarit. mu dem ba dégg daal nag xam boo déggee daal yi dootoo mën a bootu ci kenn dangay ngay ber sa ah yaa mbay gone daa xuma laa jàng yow bu ma tee ñibbi géej ah. ah jërëjëf jërëjëf.